بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة برهام احضري لنا بهذا المحضر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بظفر بعد الشيخ إبراهيم آه، تكميني وخ نفحات الملك الغني في السياحة في أرض بمكو وغيني لقمنا باي من كدفن 1947 1947 la ko Cheikh Ibrahima defoon muy at moo xam ne bàyyi xam nga dafa niroog yonantu sallallahu alayhi wa sallam fuñ ko limalee ay ndam rek boo xoolee ci beneen côté ba dana nekk métit ci moom yenn naqar am at mi ci la sama maam alaaji Muhammad alaaji ma abdi leen génn àddina ci bàyyi lool daf ne waqat ashjaani la wax إنا له إنا إليه نرجع والترضى عنه والشتيت تجمع dégg nga ah yàlla de ci moom lañ jugee ci moom lañ dellu lim tasaare maa ngi ne jot naa faatu sama soppi alaaji ma abdu daf ne waqat ashjaani loolu day yëngal na ma de xemu ci maolaana cheikh alaaji mohamad zeynabu ñas ci at la génn àddina xam ne marsiya bi ko Cheikh Ibrahima Niass marsiya boo xoolee kii maana yàlla la waaw bàyyi ne dem ak alaaj Mouhamed Zeynabu dafa mel ni rek dañoo tëjoon ci kaso ñoom moom ñu libéré ko waaw moom ñu libéré ko moo tax ba ko waaj waxee ne ko ah dee noonu la mel daf ko ne waxuma loolu de dama ne dee ak alaaj Mouhamed Zeynabu laa xam noonu la mel loolu te du ñooñu kese ñooñu ñëpp ci at ñii la ñu génnoon àddina muy 47 waaye nag bii wax yëf yi di xew fekku fi bàyyi dafa fekk mu tukki fekk na mu dem Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bi muy expliqué tukki mi bàyyi dafay dimbalee doomu aadama xam nga tukki meeg yi ci xaw yépp nga xam ne wóor na la ne boo ko dégloo da nga xam ne waxul la lépp moom te du wax lépp boo demee ca rixla xijaas ba da nga dégg mu ne wa ma katamnaahu mimma la abuxu bihi adaafa adaafa ma kunna katabnaahu wa ma katamnaahu katamnaahu mooy liñ nëbb mimma la abuxu bihi ci loo xam ne duñ ko wax adaafa adaafa moo gën a bëri ci ay ful ma kunna katabnaahu ci li nga xam ne bind nañ ko noonu la demee bàyyi na faqad xatara bi xaatirun xaatir benn xaatir moom ma dikkal xaatir nag buñ ko waxee mooy mën la jugee ca yàlla ñëw ci yow kon li nga xamee ne waxoon na ko Oustaz Braham Diop mbir yi nga gis ñuy def tukki yi nga gis ñuy def dégg nga ndigal yaa ngay bàyyeekoo ci pay ba dégg nga mm-hmm. mu ne xaatir rot na ci man fi siyaaxati ci tukki moo tax tukki sunna la ci faydu mm-hmm. waaw tukki sunnaay faydu la bàyyi na fa xarajtu min madinati kawlaxin ma génn kawlax axir laylati min zilhijja guddi gu mujj ci weeri aj bàyyi na ci guddi googu man laa génn wa ataytu dakar ma dikk dakar wa rakibtu ala tayaarati ila konakiri ma daal di war dégg nga ko avion dégg nga ko jëm Conakry tilkal layla loolu 1366 la woon mooy tolloog 1947 dégg nga fa subhaan bi yoofin daxwatan bi Conakry fa subhaana ma ma shaa alayhi qadiru boobu nag toujours bu ma ko jàngalee ci kii ndegam audio day dem fu nit mën na koo liir du gis loola waaw moo tax saa bu ko waxee dama ne baat boobu ci Oustaz Braham Diop laa ko déggee فسبحان من ما شاء عليه قدير وابو دمي تي تيري بما بين فسبحان بي يوفن دعوه بكناكري صنيع قدير للشؤون يدير لول لا بيني تيري وا خم غي تيري جيم استاذ برام جوم مو غي تيري نيب مان تي لام ني استاذ ابراهيم محمود جوم موم لول لا مو وخ فسبحان اي واي سو تيل بي يوفن ماي ني جاري بوريو دعوه بكناكري يور يور مي مفك كناكري سبحان من ما شاء عليه قدير تدنا سلك يا الله من قبل لك صوب لا يدفع لك نخ نك نخ دمك صنيع قدير بلي في المو صنيع دفر كات من قبل قدير كمن لا دفع انتليجنت nga xam ne yu diiru dafay windel li suuni ci mbir yi nu ko neexee dégg nga واختصرت رحلتي متنك سمتك منك في منظومة تجن نسجو قمنا سميتها من كتد نفحات الملك الغني أبني بورب هومال بي هبني بورب هومال في السياحة ولا نفحات الملك الغني مي نفحات مي أي مي أبني وقمنا يلا لكم مي almalik alxani buur bu xoomal bi siyaaxati ci tukki fi ardi Bamako ci suuf si Bamako Guinée ak Guinée dem ak Bamako am gi ay kéemaan am na ci te ci egg buñ eggee ci réewam Bamako gi insha allahu taala dégg nga Cheikh Ibrahim radiallahu anhu daal di tàmbali nag sant yàlla commencé expliquer li nga xam ne moom mooy am tukkim baay radiallahu anhu gannaaw bu mu ne bismillahi rahmaani rahim dafa ne xamdan liman fi dikrihi qul siiru fi l ardi man sara lahu bashiru mu ne xamdan mboolem façon yi sant yi man nag maa koy waxee noonu sama déggin la ndax jàngalekati sharia yi mboolem xaaji sant yi la ñuy wax yi ñeent ñu ne xaaji sant yi ñeent la sant gi jógee ci yow jëm ci yàlla sant gi jógee ci yàlla jëm ci yow sant gi jógee ci yow jëm ci sa mbokk mi ak sant ci yàlla jëm ci yàlla boo xalaatee bu baax da nga xam ne daal mi ngi noonu da nga xam ne sant man na ëpp loolu bàyyi nag ak lu mu bëri bëri li man ñeelal ka nga xam ne xul wax na dégg nga ko fii zikri yii xam nga kaala wax na moo gënoon a kii waaye bu ne xaala rek wayu dana ëpp dégg parce que xul li muy mooy waxal waaye fii boo ne doo wax waxal de fii dikri yi ca alquranam ja xul wax na fa ne siiru dox man képp koo xam ne siiru dox leen fan fil ardi si suuf si mi ngi nii siiru dox في الأرض سوسي من كيف كو خامن سارا دوخنا رك له نيال نكو البشير مت دغكو من كيف كو خامن سارا دوخنا له نيال نكو البشير مت بشيرو كنا خامن ن تور يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم يونت مي جيم مت يعني باي لي بغي واخ موي لو دغنا دوخ رك غنا خامي يونت يالا محمد sallallahu alayhi wa sallam kon ku dox da nga gën a xam gën a xàmme kan mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dox bi alquran ko digle yonentu yàlla yaxya ci alquran baay buy tafsir suratu mariam dana koy leeral baay mu ne zakariya moo ñaan yàlla am doom yàlla may ko yaxya yaxya nag nekk wàlli yu boo xam du toog dafay tukki rek day tukki rek di tukki rek mu ne benn bis Zakariya tawataatal boromam ne ko man de doom juma ma wéttale laa waaye kii nga ma may nga xam ne du toog du ma ko sax gis mu ne yàlla ne ko Zakariya dellul ca laaya yow ñaanoon ma waxoo fab lii wala dande fab lii min la dun ko wala dande fab lii min la dun ko waliyan nga ma wax may ma waliyu mu ko waliyu nag du toog waaw ah. dégg nga nag du toog waliyu du tok foog mu nag jàpp jàpp ak bési go xamne fay faxe rek fenn fu nek mu diiree ko fa pour ba fa dara day deg mu ne summa salatu top julli wa salam ak sëlmal sarmadan gu dappetu goo xam ne du dok loolu nak ku sujud ci hadratul kursi rek moko man julli go xamne ne wasjud waqtarib de nga ko dootoo sëlmal mukk la haddina الروح إذا سجدت لن ترتفع من سجدتها إلى يوم القيامة ruuxu bu sujjootee du siggeeti ba yowmal qiyaama yaa ngi dégg mu ne sarmadan gu dappetu ci kan ala nabi ci ki yàlla solo yonent yàlla muhammad al ki yàlla tànn muhammadan muhammad baay radiallahu anhu lay na ne tukki alquran moo ko digle dégg nga démb rek Oustaz Cheikh nettali daanaa nettali mhm. dégg nga nettali sëriñ boobu nga xamante ne nii président Senghor si boppam moo doon ni sëriñ daal nii lay mel sëriñ dafay gàtt lamañ gàtt tànk ko xas nañ la kooku dafa la ko xorox na sëriñ bu gàtt lamañ gàtt tànk ñu ne yow da rek loolu duut ab sëriñ yaa ngi dégg moo tax Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu sëriñ Mbak sëriñ Gaynde Fatma wala waaw de gaynde Fatma ñii na ne gaynde Fatma ñii ne la mm-hmm. Mbakke ba bàyyi di dem seeti leen ndeysaan balaa mooy egg yàlla ji ñëpp ñëppal di taw ñu koy Ibrahima Niass la jaral xus taw bii nii di seeti say bokk da nga xam rek ne bàmmeel yoro bu ñu jégal seeni borom dégg nga bàyyi ne xat jaa a na is nun ndigal bi siyaaxati ci tukki fa haa yëgal ne anni man Ibrahima Niass faha jàppal jàpp ak yëg yëg ak xam ne anni naka man Ibrahima asiru maa ngi dox aqtafi di xeeñtu zawin nuha borom xel yi <clears throat> képp ku ma fekk nga am xel rek ma defar moo tax xam nga loolu bu ko Cheikh Ibrahima waxee yow man nga déggee ne waa ñi xel nag xanaa kon du leen dimbale kon ñu am xel dana leen dimbale ñu am waaye li la bàyyi bëgg a wax mooy ne ñim gën a xaay mooy ngonk yi yaakaaroon ne ñoom pare nañ ngonk yi nga xam ne ñoom yaakaaroon na ne pare nañ ñoonu la Cheikh Ibrahima gën a xaay radiyallahu anhu dana ko jàngale ci kanam cheikhu tariqatin wa kana qadiri axada an ni lyowma bi Konakiri fii Konakiri doa bi ndongo Sarr danañ ko jàngale ci kanam kooku ku foogoon ne moom ndongo Sarr dana rang ci gannaaw benn sëriñ taalibe mi saaga la mhm. te dana tudd fii ci biir tukki mi ñoo xam ne ñoom ñëpp dégg nga def leen a fekk ñu nekk di ay borom mbooloo mhm. waaye axasaa ni ñëpp bi ñu gisee Baye ñaamewuñ dara daal leen jàppi cheikhul islam loolu tax Baye ne may xeñtu borom xel yi li tax may xeñtu borom xel yi xam nga ne kay euh, euh, koo dégg mu ne la maa ngi lekk ceeb ah mhm. waaye waaye sëriñ bi bu dee ceebu jën la xam nga ne lekkut ceeb ba ba fa jën ya hmm? soble sax carotte jaag yooyu noonu xam nga ne bawu ko fa loolu moo lay xamal ne ñim dajeet sax ndem dajee naag ñoom ndem dajee naag ñoom même bu ñëwul xel bàyyi dana leen monteel xel hmm. radiyallahu anu daal di defar seen mbir waaw kum daje rek si mbir sotti kanaa ku dajee toog moom la ñuy wax dégg nga cheikhul islam nag sama tukki mi dafa foor hmm. tukki mi dafa foor ñu lu fooral tukki mi mu ne man min kawlax a dugee kawlax al aminu ki yàlla xóolu fa huwa kooku aminullahi mooy kóoli teg yàlla gi bàyyi na laa aminu li ma wax dëgg la xam nga laa aminu li muy firi man ñemu mu ko wax ci bàyyi hmm. aminu li wax dëgg manam safa nak wax bo xamne ne du dëgg mooy firi la amin moo tax bàyyi na laa amin mom nak amna ñu koy firee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye bo avancer ci kanam tuti da nga xamne baye fofu jibril la ci jub waaw baye jibril la ci jub xolal xam nga bu fekkoon ne dafa ne kawlax la ànd ak yonentu yàlla muhammad donte mi ngi ànd ak moom waaye wax waxagut àndam ak yonentu yàlla muhammad bàyyi daf cee teg ne wa min dakara boo koy firi xam nga nooy def pour dégg gi gën a neex mhm. da nga naan waxiina tërtu mhm. waxiina tërtu waxtu wa man naawee mhm. dégg nga ko donte nag amul ay mbagg yu muy naawee kittu atiru waxoon na ko bëgg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah. dégg ko bàyyi na man xaw naa naaw sax kittu atiir hmm. xaw naa naaw sax aw saraytu bi dalik dégg moo tax mu ne wa xiina qirtu ba ma naawee min Dakar tukke Dakar ca avion hmm. jaa dafa dikk xayrul wara ki gën si mbindeef yénoon toogi dooti ñëw hmm. donte mi ngi àndoon moom mu ne ki gën ci mbindeef dafa ñëw wa adaa ta leeral na naññi naññi naññi baatin yi sama baatin mboolem lu war a xew ci yoon wi et eh, déglul nag fii dafa am lu fi ne xam nga tukki baay mi ci Guinée ba ma ko murit fële Sierra Leone xam nga ne tukki dafa métti bàyyi dem na bay ñaan yàlla ne ko delloo ji ma Medina waaye affaire métti na de yow mi xamul boo déggee da nga naan dafa métti ba sëñ bi di caali mm-hmm. waaye bàyyi xamoon na loolu balaa muy def parce que nee na boo baatini adaa Mm-hmm. yonentu bi leeralal na ko baatini tukki mi lépp la ko leeralal radiyallahu anhu kon kay mboolem lu ci naayoo xew dégg nga ko dégg nga ko macha allah Cheikh Ibrahima xamoon na ko waaye li mu doon jàngale mooy tukki nag lépp mënta nekk am happiness mm-hmm. lépp mënta nekk ay bànneex bëri na koo xam ne nag moom bu tukkee lim faw rek mooy mm-hmm. dañ ko war a dugal ci néeg yu sedd ay climatiseur di ko indi lekk yu neex dégg ko di ko bësal dégg ko bu ñibbi jotee ñu dajaleen ko xaalis jox ko mu defee la moom loolu rek lay jàpp ne mbir yi loolu la war a dafa jàngale ne tukki dafa war a am jalaal mm-hmm. tukki dafa war a am jalaal yaa ngi dégg mu ne wa baatini adaa wa adaa a baatini leeral na sama baatini bàyyi mu ne ba nangoof na daawati sumay ñaan ಲಡಾ ಕೊನಾಕಿರಿ ಚಕೊನಾಕಿರಿ ಕಮ ಹಮಾನಿ ಕೊಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಮನ ಕಿರಿ ಚಿಂಬೋಲೆಮ್ mana malalaaj ibrahim luñ sib doo ko gis si man ndax mënta xeg si si man xanaa moom konaakiri la la yàlla du feeñ ci barab ba barab waaye barap cibarap. a feeñ mom ci mm-hmm. la fa rek moo ko xam lan la bàyyi muna def konaakiri ba tax mu ne fa sama ñaan moom rek moo ko xam taxu ko kenn waaye wóor na la ne dafa am lu xew moo tax mu ne yàlla nangu na sama ñaan fii ci Conakry parce que Conakry dëkk ye bari nañ mm. ay almaam almaamu yu bari nekkoon nañ fa ñoo xam ne am na ñoo xam ne biñ gisee Cheikh Ibrahim dañoo bàyyi seen soxla yi topp ko ay susu ay bambara ay soose ay façon ngi nit yoo xam ne kenn xamul ak ay sénégalais sax yoo xam ne dañoo jóge woon fii dem dëkk ji foofa te bàyyi dana leen wax ci kanam wa sénégalu qawmuha atawni nga xam ne kon cheikhul islam maulana alhaaji ibrahim radiallahu anhu nangu ñaan ak yàlla googu ci Conakry muy wax lim ci namm rek mooy yàlla doxal na mbir yi ni mu ko séntu woon donte mujj naa métti lool dégg nga mu ne comme ni ko yàlla xaaree ci mboolem liñ sib xam nga ne bàyyi doo gis si moom liñ sib ndax koo xam ne balaa nga ko yëm lool boobu aw na xar feeñ boo xoolee Barhama si gis ko muy ndax mooy jëmmi alquran dégg naa ci Serigne Mahdi Ibrahim mu nettali mu bés dañ ko wax ne ko bàyyi yow xanaa mënoo lépp doom ak bàyyam yow doo ñu léebal mu na teg waaye mu ne lépp lépp koy maa ko fi dàq waaw ndax alquran yëpp ay lépp la te li yàlla bind maa ci gën a dégg alquran waaw ngi dégg lii yàlla bind maa ci gën a dégg alquran te wallaahi dëgg la inna sirri kalaamu rabbil mubin ay ilaahi alladi bihi nastainu ndeysaan Cheikh Ibrahim ne ana sani wéttali rabbi sama borom man yàlla may wéttale xam nga ne ko yàlla wéttale doo wét gis nga wéet dafa métti waaye dafa baax mag ñi dañ daan wax ñu ne képp ko xeenu yoonu mbaax da nga wét Mm. boo ñemee wut wéetaay rek da nga a dëpp mm. ndax jamono ji nekk tax mm. haada zamanu zamanu xaalis wa mbub mu jot <laughs> ma niqtafa bi ji rushdin qiila kii lu ko jot jamono ji jamono xaalis ak mbub mu jot la fekk ñëwoo ci seen biir tabax ak kër di sol ay dara yu rëy ku xëy nga jox ko benn deux mille francs wala cinq mille da ngaa xalaku kii dafa torox taxawaalu rek la nekkee sol dàllam yi mu caram-caram yi xaw ni ko buggaa di waxee lu mu gis dugg ci loolu rek lañ lay wax waaye loolu bu fekkee ñi ma danga taay teel a dëpp bàyyi ñes nag kokam du ragal wii parce que wóor na ko ne ko balaa muy dëggal waaxidu yetu yàlla gi ahadiyatu gi la njëkk a gi la njëkk a dëggal ku dëggal ahadiyatu la ragal wii yow dara dafee nekk ah dara nekku fi yow yaa woote woon ne dara nekku fi mm-hmm. kon nag da jàpp rek ne wax ji si sa làmmañ yi lay jugee mm-hmm. jëf ji si sa cër yi lay jugee jàkkaarloo amut ana sani rabbi yàlla day wéttali na ma la daa kindiya ca kindiya mm-hmm. xam nga noo koy firee mooy Cheikh Ibrahim radiallahu anhu am na ñu nangu lim oote ca kindiya dégg ko ñu ñëw ci moom léegi nag ñooñu ñëw ci moom noonu mooy waxtaan ak ñoom ñi ngi naan ataaya gars yi bëgg na Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bàyyi ngi leen di touché leer yi radiyallahu anhu bàyyi du wax ne waa Kindiya wétali nañ ma mm-hmm. mais dafa gis na yàllaa ko wétali yàllaa ko tey jii boo amoon koo xam ne daf lay faral di wétale nga namm ko namm xamoo fu mu ne dégg nga mm-hmm. xamoo fu mu dem nga toog rek mu yegg si nga tatafu ko haa lii de yàllaa ko man <laughs> looy wax lii de yàllaa ko man mm-hmm. yow de yàllaa la fi indi yow de ni ma la ni ma la nammee woon yow de nangam ak nangam bàyyi nag au lieu moom mooy wax yàllaa ko man ak yàllaa ko fi indi mais dafay gis ne yàllaa ñëw mu ne ñu xaar yàlla wala nga dégg ko loo xam ne daf ko neex loolu mu ne yàlla ñëw na yàlla ñëw na bii moom yàlla yàlla yónneewut dafa ñëw da ngi dégg te bëri koy wax loolu boo ko ne ana yàlla muy raay ndong muy raay ndong Cheikh Ibrahima ne moom yàllaa ko wéttale ca Kindiya dëkk ba ñuy wax Kindiya ndax lan aw daa dénk na sirrahu mbootam ma mbootam kan al aminu yonentu yàlla Muhammad andee ci man mbootam yonentu yàlla Muhammad mi yàlla dénk na ma ko Kindiya xàmme nañ ma moo tax yàlla na ma fa mu ne bi latifu ci tur yaa latif yow mi jàng nag bëgg naa ngay compter ñaata yoon la bàyyi tudd latif ci téere bi bëri na de waaye gu fonk la benn da ci xamee ne dogu tukki am na ci latif da ko ci xamee ne dogu tukki moom am na ci moom da ci xamee ne tur bu bàyyi ñes fonkoon la radiallahu anhu wax nañ ne daana wax ne Cheikh Tidiane dana wax ne mu jug jamono yàlla waxambaane toyam lay dox du wax li li gars di wax naan xaw ma du ma wax kenn xaar xaar ma yàlla xam nga ku ku ku wóolu dooleem loolu lay faral di wax duma ma kenn xaar ma yàlla banaa la ak yàlla dama koy faj léegi léegi léegi. Mm-hmm. Cheikh Tidiane mu ne mu jamono yàlla noonu lay noonu lay def moom du wax kenn ba ëllëg moo gis na nga gis accident yu métti yi daawut xam feebar yu métti yi daawut xam dee gaaw yi nga xam ne kenn daawu ko gis. Mm-hmm. yàlla moom moo wax ne du ma xaar ëllëg mu ne nag képp ku ko jaaree ci turu latifam wii mm-hmm. dana ñëwante ci sa mbir. mel ak yow ni melut ak gaañ. war a jar naa seet bàyyi ne bi ya latifu ci turu ya latif qad daawtu o oowee yàlla rahilan bir moom may ajid boy manam may aji dem bi may dem <clears throat> ya latif la ñaane mina tuke ci mom o min mamu tuke ci maamu de nga ko wala nga ne wa musailan bir ma da aji laj ko wala aji ñaan yani ñeal ko lewu ñeal ko min mamu tukecimam. ci dégg nga ko kindiyaa googu ba fay jugee ba may jugee Kaolack ba may jugee maamu yëpp yaa latif laa ñaanee borom bi subhanahu wa taala pour mu leeral samay mbir bàyyi daal di jugee maamu ne bi Fuuta Jalaa ca Fuuta Jalon Fuuta lañ koy Fuuta lañ koy waaw bi Fuuta jala Fuuta Jalaa gi moom la benn waay netali ak gentu go xamne ne daf koo gént maolana alxaaji abdullahi abdullah wayjuri cheikh ibrahim bim mu waji waa bi sax mu ngi ci téere yo xamne ne na sori wul ma mu ne dafa gént ñu gis mam asu jank ci al aljanna taxaw diko xol xool mu ne mam asu du du du gu neex ñu di ko rek mu ne maam ñu geesoo seen maam alaaji abdullahi mi nga ànd ak yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam alaaji egsi bi mu egsee ne leen atataajabuuna bi amri xalilati aïchatu da ngeen a éemu ci mbiram sama soxna aïcha gaa yi ko ajal waaw ñun koy daf ñoo xéem mu ne leen mbiram lépp nag barkeeb doomam la ibrahima xéewal gii muy dund yëpp barkeeb doomam la ibrahima moo tax danañuy wax xawma xawma ñu ne Fatimatu Zahra moo koy faral yow xawma ne li ñuy lekk nii yëpp barkeeb barkeeb alaaji la barkeeb baay bi dajjeeguñ ko oh, waaw ko barke baay bi de buñ ko dajee bu soob yàlla ay eh, danañ xam ne maam alaaji mu ne maam su li muy dund noonu barkeb doom Ibrahima la ba pare maam teg ci wax gaa yi ne leen gaa yi doon nettali gént gi bàyyi dañ ko wax ne ko maam alaaji moo leen wax ne qul li Ibrahim inna allaha wahabahu bi xayri kasbi ahadin bu ngeen demee waxal leen ma Ibrahima ne ko yàlla moo ko may hmm. may gi kenn sababut sabab sababut ko jugewu ci kenn jugewu ci kenn mm-hmm. du yaay ju baax du baay ju baax du liggéey du nangam ak nangam ak nangam dara moo tax mu ne mu ne mu ne moom Cheikh Ibrahima radiallahu anhu fa faada minni duraral maani duuna taamulin wurus maanaa yu jugee ci man du ne dama liggéey yàlla jox ma ko wala taani du coono tam yàlla ko may gratuitement moo tax bàyyi di maye yàlla gratuitement eh. radiallahu anhu gratuit lay bàyyi di maye yàlla gratuite. gratuite gratuite dégg nga Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ne bi Fuuta Jalla ca Fuuta Jalon xat ta Jalla la feeñee Jalla màgg ak yàlla gi. Fuuta Fuuta Fuuta Jalla Fuuta Jalla taxut koo na taxut koo na neex. waaw bi fa bàyyi njëkkee jaar. neexut parce que dafa jalaal. waaw dafa Fuuta Jalon dafa dafa jalaal dafa xew. waaw li ma la wax rek bàyyi dafay junj rek di bàyyi. waye ni mi tuddé baat yi xam nga tu yalla gi la fi indi te yalla fum mu feeñee ci jalaalam gi rek mbiri du du fay xaw a doy waar moo tax bi futa jala xatta jalla jalla hmm. xatta jalla la feñe jalla màgg ak yàlla gi ah te yalla fum feñe feeñalee magam gi rek ndaysan wa azza na sunu waye nak gannaaw ga wajala wajala bobu do wax jalla de wajala yeneen yi jalla la dafay sidda waaye bii wa ngay wax xam nga wa shakki la wa shakki te samay tawat jala huñu na ko kon xam nga problème dafa amoon mun waaye problème bi yàlla mujj na ko sàmbara léegi nag boo koy firi pour dégg gi gën a kii da nga naan wa jala te huñu na shakki sumay tawat waaw wa jala da nga koy yóbbu ca jala ga booy jàng nag da nga naan wa shakki jalla wa shakki jala deng nga waaye boo koy firi da nga naan wa jala shakki yàlla suma tawat yooyu nga xam ne moo nekk ci futa Jala dégg ko ba mu ba mu koy tudd noonu yëpp yàlla uññil na ma ko ba alhamdulillah tax ma ne la Cheikh Ibrahima dafay junj rek affaire bi nag kullu usrin baadahu yusra nam ko waxee ci ruuxul adab fu usru am rek yusro ngi dikk xoolal futa Jala la jugee mu métti yàlla uññi affaire bi bàyyi ne bi dala ba ca dala ba xat tamma lamat minu ci moom albastu tàllalu gi eh dala ba moom happiness dafa dala ba moom eh, neexoon na wuu dala ba neexoon na waaw ñun daal war nañoo jël rex la boo xam ne daal dëkk yi yëpp dañuy bind seen tuuri rek bu ci nekk rek ñu dem fa ñu fa bàyyi daloon waaw gisee gisee ñooñ dëkk booba gisee ñooñ kër googa Kindeya mu sama xarit yéene naa ko de naa sama mère am dëkk Kindeya laay la danañ ko dem dëkk yi foog ñu dem insha allahu taala yal na yàlla may ñu moyen rek dégg nga bàyyi ne qad tamma minhu lbastu li abdihi ci jaamam bi goo xam ne wama ra'aha musuko gis xatt mukk bàyyi ne mbégte li ma yàlla jox ci dala ba mësuma koo gis mën a laaj Ibrahima du bég fekk mi ngi gis gaa yi nga xormaal muhammad mm. lu gis na gaa ko xormaal bàyyi du kontaan lu dul gis na ne gaa yi nga jox xaq tariqa Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu parce que diine yonentu bi niñ ko fare da ko métti wax na ko te danañ ko jàngale léegi ci kanam alama ni yow man dira sunnati maahid balaali fii la nekk mm. dégg nga dégg nga Cheikh mu ne bitinka ca tinka فرشفيت لا سافر من اسقامي تي سمي فيبر داك دا هوبون ديد دو لول دي باي فيبرام لين رك لا موي بوج يونت يالا محمد ليكوي سافر موي مو غيس كوكو كوي بوج لي وا لو رك لا تا باي سام رضي الله عنه وانني لفي غيره لو خن ممن يروم محمدا من دما فير تي كوي اوت يونت محمد تا باي وخون ناني خلل محمدا بلن تياخاني تا نين جي يونتو nan la fiiree kon gars yi pour ñu jàpp ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam li muy fiir mooy kum gis muy jàpp jàppalu yonantu bàyyi bëggut kuy jàpp jàppalu kuy jàpp la bëgg. Hmm? dégg nga ko. Hmm. dafa jël. bi dalaba. bi dalaba qad tamma minhul bastu. li abdi. li abdihi. waaw wa maa ra'aahaa qattu. Hmm. lu mu def. da nga koo tëb. ah wa maa ra'aahaa gi mm-hmm. waaw bi abdi ci jaamam bi wa maa ra'aahaa fut ko xattu mukk mm-hmm. mooy li nga dégg naan musut koo gis mm-hmm. wa maa ra'aahaa maanaam tàllalu googu mbégte googu muy wax moom la wax ne wa maa ra'aahaa gisee fut ko xattu mukk daal munu musuma koo gis mu ne bitinka xat sufiitu min asqaami ca lañ ma saafara ci suma feebar yi feebar yi lan la bëgg yonantu bi feebar yi lan la bëgg Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu bu gisee ñu ci xaw nim ko bëgge rek bàyyi dafay daal di nekk ci mbégte mu ne bi barakaati waxu bi barakaati de bi barakaati ci barkeey sayyidil anaami sangu mbindee fi mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent muhammad ku bëri ay barka bàyyi na xat saaqani màng na ma mooy yóbbu na ma xat déedéet xat saaqa indi na loolu wax neel màng na rek moom lañ koy firé xat saaqa màng na lii ñeexal ma indil na ma al muriidu kuñ nammu kii mooy kan yàlla yàlla si boppam moo ma indil kan la la indil mu ne man képp koo xam ne yuriidu nafaan dafa bëgg a jëriñ hmm. kon buñ ne la nekk taaliba bàyyi lu muy jëriñ nel bëgg jëriñ hmm. xaw ma ban conférence laa ko doon defee tey kan mooy taalibe Baay Ñas may leen ki bëgg a jëriñu te tegtal baa ngi ni xat saaqa lil muriidu man yuriidu nafaan yàllaa ma indil képp ku bëgg a moo tax may faral di wax si samay wax yi ne ku lay waxtaanal ci lu duhut bàyyi dafa bañ ngay gis njëriñ li waaw képp ku lay waxtaanal Cheikh Matidiane kon dem la mu koy wax ma ne ko sëñ bi jërëjëf dundal nga ñu ndax ñun bëgguñoo toog ci conférence dégg kuy waxtaanee ku dul baay mu ne man ma ko mënul sax man maa mënta waxtaanee sax man lu dul bàyyi yaa ngi dégg ndeysaan moo tax man boo ci nekkee rek yëg gi dafay jolli lool dégg nga ko mm-hmm. ndeysaan cheikh ibrahim radiallahu anhu mu ne yàlla ko indi man yuridu képp ku bëgg naf an njëriñ li diini yi ñeel diinam wa man ak képp koo xam ne ya suudu bëgg naa sangu mm-hmm. waxuma sangoog ndox de bëgg naa sangu nekk nekk sang yaa mm-hmm. nga nit du ànd ak Cheikh Ibrahima ne li tax ma topp baay mooy mu def ma sang mm-hmm. waaye topp baay rek mooy nekk sang ku yow jaam la ci sa bu dee yàgg baay nag jaam nga comme yonantu bu dee ca yàlla la yonantu jaam la bu dee ci mbindee fi yonantooy sangum ñëpp mm-hmm. dégg nga ko taalibe baay bu dee ci baay ñun ñëpp ay jaam lañ bu dee ci ñeneen la ñooy sang ji gaañi di jàmbi waaw loolu la yàlla dogal ku ko bañ ak ku ko nangu bi rax mi unu fi ko waanu ñu eggale gaaw xam naa kasab bi dina xaw kii ah, mu ne axada jàpp na an nii ci man axada jàpp na an nii ci man al amiru buur bi kan la omaru omar bi jamaihi yaani maa jamaihi xam nga omar mi dafa bëri woon mbooloo ku bëri mbooloo la woon ci Guinée mm-hmm. waaye bi mu egsee ah sëriñ bi reeni guy nag bu daanoo doom yaa xob ya waxi noppi moom moo njëkk a ci baay jàpp ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mbooloom yëpp ñëw jàpp ci baay moo tax baay na bi jam'ihi kaza niki noonu rijaalun ay góor u xar ñeneen ñoo xam ne du ñoon sax taalibe Omar mhm. waaye yëf ya daa leen daa leen fekk ñoom it ñu jàppale ci tinka garaawoon na de wallaahi ndeysaan lu yéeme la woon baay na amut ci jàpp ci man mook taalibe mi waaye dafa pare sallama jébbal na lii ñeel ma al awlaada doom ya ajmaina ñoom ñëpp doom yëpp la jël ne ma samay doom a ngi nii jëlal yóbbul Ibrahima Niass yóbbul bàyyi na abqaahum yal na desal leen al mawla yàlla musawidiina ñuy ñuy ay sang moo tax ku dem seen barab tey boo leen xamee da xam ne ay coomo duñ fa dëkk bàyyi na Adama bàyyi gërëm na lool. ndax mu koy ñaanal adama yal na saxal rabbi suma borom izzum seen tedd nga wa zada tam dolli teranga jama fa fek wa at xafa may al amir bur ba di umar ma lépp lo xamne ne araada bëgg na ko ko yàlla defal amin waay bay jugee na tinka bay ne wo timbo dëkk ba ñuy wax timbo ci Guinée bàyyi bi ma egsee rek direct se jumaa ja wa qad sallaytu julli naa fi masjidihim si seen jàkka ja bañ pare wa chamau ñu dajaloo lii ci man la daa marsadihim ci seen pénc ma xam nga marsad garage lay firi waaye si seen pénc ma nga xam ne fa la ñuy toog di waxtaan ba fa dajaloo xaar ma ma ñëw hmm. ndeysaan ba mu ñëwee jëflante ak ñoom la mo jëflante ak ñoom taxawu fa sax daal di continuer bàyyi na bi daa laa imaam almaami bi dëkkoon foofu tur yu dafa fàddu suma xel mi mhm. almaami waaye moom moom bi mu paree ci baay mooy almaami bi nekkoon daabu la moom dafa topp baay dafa ànd ak moom kilifa gu mag la woon almaami dinaa indi tur yi xëy na ci beneen dars bi dina fekk ma jël ko bàyyi ne bi daabulaa ca daabulaa daabulaa nag dafa xawoon a kii tuuti bàyyi ne xurrimtu xañeef na ma taamal ma këli caf ka ñam waqat xurrimtu xañeef na ma ad naw ma nelaw inda manzili dégg nga ko ci kër ya bul dégg nag ne dañ koo aaye kër ya wala ñu ko seen lekk ya bàyyi dañ koo tegal lekk gu saf te bàyyi dafa am ngor ba pare dafa borom kersa la Cheikh Ibrahima du leen comme ni ko tukkikat yi di defee tey man bëgguma nangam de man du ma lekk nangam de man defar leen ma di commandé hmm. bàyyi daawut def loolu te moo gën a xam fekk situation yi ne waaye bàyyi du commandé radiallahu anhu Cheikh Ibrahima ñu tegal ko lekk gu am kaani ku ne xam na ne ñag yi dañoo bëgg kaani bàyyi di lekk ronkañ yi dàq ndax bu gudd waaye foog mu barkelu ci ndax ñi ko tegal lii lañ am ci teraanga ñi ko tegal lii lañ am ci teraanga bàyyi ne du leen tuutal mukk waaw du leen tuutal mukk daal di lekk waaye it ba tëdd jotee it néeg yañ ko entré dafa am ay mutu mutu yaakaar naa Saalum Saalum xam nañ mutu mutu mm-hmm. ah kenn mënut a fanaan ak moom ci néeg bàyyi mun a nelaw ak mutu mutu yi radiyallahu anhu bu doon mutu mutu yi dëkk Medina la xam nga li may faral di wax ma ne yooyu Medina sax bokkuñu ak yooyu dëkk feneen yooyu Medina bàyyi mm-hmm. bokkuñu sax yooyu dëkk feneen. yooyu dëkk feneen bu lañ buñ la mattee fa nga feebar ah radiallahu anhu bàyyi ne waqat xurrimtu naw ma xañ nañ ma ne la inde manzili seen kër gi nañ ci nag ne ki ko dalaloon kër giñ ko dalaloon waa ji euh, moom xamut bàyyi hmm. waaye nag bëgg na ko ndax ca seen biir néeg ba sax ña nga fa tafan foto Cheikh Ibrahima radiallahu anhu hmm. léegi nag biñ ko dalalee ci néeg bi doom ji moo ñëw xool sëriñ bi Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu xool photo bi nekk néeg baayam mu ne baayam ñun defe naa suñ gan gi mooy suñ photo bii de bàyyi ji ne ko lan yaakaar naa moom la de hmm. bàyyi ñëw xool ko xoolaat ne ñun toskare ne xëy la xewoon moom la waaw xëy la xewoon moom la bu ñëw pël ñi buñ fekkee seen photo si biir te photo bii de barab sàngam laa ko photo woon pour xamle gars yi ne moom la waaw bu doon sëriñ boppal day ñëw naan photo bi hee photo bii de xaw naa yàgg photo hee <laughs> photo bii moom photo bii de barab laa ko foto woon nga dégg ko ah kon yow di <laughs> laay bàyyi da moom daf naan tekk rek radiyallahu <laughs> anhu daf naan tekk rek li xew yëpp xew tax mu ne bidaa bu laa xurrimtu taamal makali wa qad xurrimtu nawma inda man si gars yi mu mënuñoo tukki gars yi mënuñoo tukki barke bàyyi waaw yaa ngi dégg mhm. parce que looy njëkkante doo boromam mhm. li ngay boromam doo ko njëkkante da ngay teey sàcc dafa yàkkamti rek waaye lam sàcc baraw bu teyoon mu fekk si ko mhm. dégg nga bàyyi ne mbir yi métti nag wa qultu ma ne yaa raximu yow aji xéwal ji julli rek ci àllaaxara yow raxim يا كريم يا اجي تدجي يا بر يا اجي باخجي يا لطيف نياري يون يا اجي نيوانتجي يا عليم يا اجي قمجي واي ترجعوني دلو جي واي الى مدينه مجم مدينه سالما مبير موم ماي اجي مچي غن مدينه من مدينه غا خامني مركز سر الختم موي سنتر مبوتم خاتم الولايه المحمديه centre bi nga xam ne foofu la ko yàlla denc moom moom mooy waaw mbootam xat xat xat mi ya borom xat mi ya foofu centre Medina Baye la ko yàlla denc su ma xaani man topp may aji xoomal yàlla mbir de te bu ci am wa tëj burul kasara jangal damm damm gi jangal damm damm gi damm damu bi biha ca Medina ban damm damm mu ne fa inna ndax Medina daal. qad fuqidat ñàkk na ami ci at mi 47 gii bu duurun ay weer indaha weer yi mooy ñi ma la doon wax ku mel ni maam alaaji Mouhamed Zeynabu maam alaaji ma Abdou Niang dégg demet dégg nga ko ndeysaan Ibrahim nag daal di ñaan ñaanal Madina ndeysaan man ñaan gi sax boo ko daan dafa daw sama yaram ñaan gi dafa daw sama yaram baa def ne rabbi aya rabbi yow suma borom aya eh, rabbi ay eh, yow suma borom dégg rek ni mu rabbi yow suma borom aya eh, rabbi ay yow suma borom ndeysaan hmm? fala tadarha bul ba madina xaawiyatan muy aji ràpp bul ràppal madina wal tuksiran na nga bëril xayraha hiyu madina ñaan nga nangu de gis nga ku dëkk Medina du génn di im lenn fenn du du auto bu rafet léegoo-léegi gis fa auto yoo xam ne xewagut sax yére yoo xam ne xewagut lekk yoo xam ne fii rek nga koy gisee Medina gi la am radiyallahu anhu moo tax mu ne wal tuksaran na xayraha bëri lal hiwi Madina suqlawumul arzaqa màngal leen wërsëg moo tax ñi nga xam ne dañ fi def ak jubadi pour xam wala ñuy génn ci biti naa maay borom nangam maay lii maay laa man damay gis lii damay gis laa dañoo xamul xéewal ak gi rek buñ teyoon billaahi danañ xoddu ba doyal danañ lekk ba doyel danañ tabax ba doyal te du jaar fu du noonu boo xamee xéewali bàyyi gi rek doo triande suqalahumul arzaqa màngal leen xéewal yi bàyyi ne man xam naa leen de ñu dëkk Medina nag laa wax xam nga léegoo léeg nit juddoo fi ci digg xurum bi yaroo fi jàngee fi te dëkkoo ci dëkk bi waaw benn doomi baay moo ma ko wax mën naa ko tudd sax sëy sëriñ Madi la moo ne ma Seydi Aliou moo ko waxoon ne ko dëkk bii ay jullit ñoo daw làqatu suuf pour rawale seen diine ku fi jàngut bokkoo ku fi jàngut bokkoo fi dégg ko te loolu mooy dëgg ku jàngut juba bokkoo fi mm-hmm. ak noo mën a sant ak koo mën a dox boo jàngut juboo bokkoo fi ndax boromam njàng ak njub moom moo tax mu ñëw fi ba pare gaa ñi topp ci ko fi moo tax yàlla ne man xam naa bàyyi ne ko suqu màngal al arzaq wërsëg yi leen ko nañ am wërsëg rek parce que man xam naa leen suñ amee wërsëg rek yaa amuruuna danañu dundal jaamiahum seen jumaa ja te nag maa ngi lay xamal ne wallaha yàlla rek yaabuduuna la ñuy jaamu parce que xam nañ ko duñ ko bokkaale waaw Medina dëgg la bàyyi ñes di wax de waaw Medina dëgg la Baay Ñas di wax ak loo sori sori boo nekkee ci lii rek Medina nga dëkk bàyyi na aalimuhum seen borom xam-xam ba waaw seen borom xam-xam ba borom xam-xam Medina ba xam Baay kenn la joxoñ yàlla mooy faral di waxee noonu waaw yàlla mooy faral di waxe noonu xam nga yàlla bi wax xaala rajulaani ñaari góor kaala wax na rajulaani qaala wax na kay rajulun waay waaye qaala wax na rajulaani kon warutoo jiital qaala hmm? qaala wax nañu rajulaani ñaari waay xanaa bu fekkee da wax ne yàlla dara war na ko loolu la war na wax waaye qaala wax rajulaani ñaari waay waxi ñaari waay jila boole muy benn Cheikh Ibrahim benn borom xam-xam boobu parce que borom xam-xam yi Medina yëpp seen xam-xam bi ñuy wax taalibe benn la montoor yi baax ñoo bokk heure moo tax bàyyi def leen ñuy benn jëmm bu la neexee nga ne borom xam-xam bi Seydi Ali Cissé la woon bula la neexee nga ne maam Abdou Thiam Thiam la woon Abdou Njàmbe bu la neexee nga ne maam Alaaji Mouhamed Zeynab la woon bu la neexee nga ne Oustaz Barham Diop la woon bu la neexee jëlal tur wu neex bu boobaa yeneen borom xam-xam yëpp dañuy lakk ci biir jëmmi borom xam-xam boobu représenté Mawlana Cheikh Ibrahima ni nga xamee ne muqaddama Baye Niass boo gis rek moom mooy yeneen muqaddama mhm. taaliba boo gis mooy yeneen taaliba Baye Niass mhm. bàyyi na aalimum seen borom xam-xam ba yu darrisu loolu ma ngay jàngale fànni xam ya waaye nag fi kulli saatin waxtu wu nekk rek yuri ma ngay wan taalibe ya alfuhuma ay dégg yu bees taq waxtu na rek mi ngi woon taalibe yi dégg-dégg yoo xam ne dafa bes pàq mosuñ koo dégg njàngale moo amul dégg-dégg du njàngal toog rek naan su ma salaatoo bu julli wa salaam sulmal sarmadan faw ala nabi ci yonent bi al mustafa kañ tànn muhammadan muhammad xat jaa dikk na is nañ ndigal bi siyaati ci eh, yow jàngale woo di moo tax naari Mauritanie di wax ne ñoom balaa ñuy xam bàyyi daawuñ firi alquran dañ daan nafar jalaalayni ñoom dañ daan nafar jalaalayni waaye daawuñ firi alquran ñu ne ñoom firi alquran ci bàyyi ñas lañ ko déggee a xoolal niñ bëree woon xam ñu ne ñoom firi alquran ci bàyyi ñas ko déggee ñëw moo tax def naa ko bés tafsir alquran ci Gàmbi si jumaa jama ma daan njëkk a tafsir bis ma tafsir ba yàgg rek dama jooy parce que mag ñi fi toog ba jaaw ba magee di yéemu ci li nga xam ne ñun ñu ngi koy wax ba kenn ci imaam mi nga xam ne mag la def ne ma ma doon gone tey du ma taxale koo yow dama lay topp ma jooy ma xam ne bàyyi dafa baax xoolal malaan mi ma sàng xoolal malaan mi ma sàng bu ma fa waree xoggali ko yaakaar ne man la man man la loolu du ma toskare man du ma musiba du ma dal duut man bàyyi ne yuri muy wan taalibe alfuhuma ay dégg-dégg yu bees wala aabiduuna jaamukatu yàlla ya yalzamuuna ña nga taqoo a zikra zikar sa moo xam zikar sax dog yàlla ca kurus ga moo xam daayira la moo xam gàmmu yàlla moo xam conférence waaye zikar sax ñoom jaam ko te yàlla yi nga taxoo zikar sax bàyyi ne li juuxihim seen ñeel seen xiif ba rabbi yow suma borom ya suuqu yal nga màngal leen almayra ay hiw yoo xam ne almayra ay dund yoo xam ne danañ ci mën a sukkandiku ba mën a jaamu seen borom jaamu goo xam ne dégg ko lépp dana xéwén ba duñ ñaanaati dara duñ xaaraani dara dégg ko xaw ma naka la ko woykat bi waxee pare nañ ci xaaraan yi ñun pare nañ ci <clears throat> ñaanaan yi ñun ñëw leen ci sëgg naan ji xaw ma naka waaw ñëw leen ci sëgg naan ji ah dégg nga kooku mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu lépp lum ñaan rek yàlla daf ko koy daal di defal xam naa dañuy am foofu ñaareelu dars bu ma da dalee wa Sénégal xaw ma ataw ni yal na yàlla may ñu dégg ak topp defal ñu tawfiq lu ci leer bàyyi mooy jàngale moom ci làmmañ yi jiitu ci nopp yi dégg lu ci lëndëm dégg nga ko moom ki doon jéem a jottali la tafa saawut in uridu illa al islaah ma stataatu ma tawfiqi illa billah seen mbokk Ahmad Dame ñu ngi la Sénégal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu